dañ ci bëgg a wax ci li nga xam ni mooy suñu taxawaay depuis ba ñu tegee suñu kuréel bi nga xam ni moom mooy FRAPP FRAPP nag bu ñuy fàttaliku depuis 2017 nekk na organisation boo xam ni dafay bañ noteel nekk na organisation boo xam ni aussi dafa doon woote lëkkaloo ci doomu Afrique yépp ngir que lii di suñu koom-koom lii di suñuy waaso war na mën a jariñ waaye warul nekk lu ñuy diviser ci loolu ci ay weer yu ci ginnaaw suñu kuréel bi ñuy wax FRAPP ci ay kuréelam yi nga xam ni ak ay ñun ñi ko seq ñuy membre yi jege nañu trop ñi nga xam ni ñooy askanu Sénégal ñi nga xam ni tey ñi ngi jooy li nga xam ni seen suuf dañ koy nangu ñi ngi toj seeni kër ñi ngi leen yi génne ci seeni kër yaakaar nañu bu ñu jëlee exemple bi gën a gaaw terme sud la démb ñi ngi leen doon defal téléthon waaye aussi étudiants yi nga xam ni orienté wuñu leen ci université yi ak forage yi nga xam ni dañ ko nangu jox ko ay promoteur privé te ñu nekk ci àll bi fàttewuñu tamit ñi nga xam ne ay liggéeykat lañu te seeni bërëbu liggéeyukaay yore leen ay payoor weer yu bari am na ci sax ñoo xam ni dañ leen a dàq ci dàq bu teguwul ci yoon moo tax ñun ñu jàpp ni lii ñuy wax tey émigration irrégulière maanaam mbëkk mi ñi koy def ñu bëri bokk nañu ci ñi nga xam ni ñi ngi dund difficulté yi ñi ngi dund lu mett yi ñun ñi nga xam ni ñooy seen FRAPP ñi ngi nekk tey ci ñooñu nga xam ni ñi ngi xeex ngir jotaat seen àq ak seen yelleef ba pare di am njax njàqare nag ci li nga xam ni yokk bu doy waar la ci liggéeykat ñi nekk ci àll bi ak ci nga xam ni mooy ci dëkku taax yi nga xam ni seen àq ak yelleef dañ koy salfaañi yokkute bi nga xam ni aussi mi ngi am ci nangu suuf bi nga xam ni ñu ngi koy nangu suufu sénégalais yi paacoo bi nga xam ni ak tongtong bi nga xam ni ndox nga xam ni ñépp ñi jàng te seen xel màcc xam nañu ni ci at yi ñu jëm doon na li nga xam ni enjeu bu am solo lay doon gis nañu ni ndox moomu dañ koo jël ci population yi jox ko ñeneen nangu ko ci loxo ñi nga xam ni ñoom ñooy baykat yi frat mi ngi wax président Macky Sall mu dakkal lépp loo xam ne nii pàccoo suuf la fii ci suñu réew FRAPP mi ngi wax ni na gouvernement bi liste ñépp ñi nga xam ni tey dañoo am problème mu suuf te aussi mu gën a cee cëral ñi nga xam ni ñoom ñooy baykat yi ñi nga xam ne ñoom ñooy sàmm ak population yi nga xam ni vraiment ñi ngi dund impact environnemental FRAPP mi ngi wax ni président Macky na jël ay matukaay pour que càmbar li nga xam ni tey moom mooy litige foncier yi nga xam ni moom moo am ci département yi ak ci communes yi waaye aussi fépp ci Sénégal seenu FRAPP nag ci li nga xam ni mooy li gën a am solo di taxawaayam mi ngi koy continuer waaye di ñaawlu aussi li nga xam ni ñi ngi jàpp ni du remaniement bu am ma askan bi njariñ waaye remaniement boo xam ne na paacoo la ñoo xam ne entre ñi nga xam ni politicien la ñoom ñoo koy def ci seen biir waaye ñun musuñoo jàpp musuñoo jàpp ni pàccoo boobu moom mooy génne sénégalais yi ci seen ñuy difficulté moo tax ñun dañoo mës a wax que ni ñun li ñuy xeex mooy li nga xam ni mooy train de vie de maanaam état bi manque bi muy manque suñu alal nga gis da ngay dégg ñu ni la président de la république am na lu ëpp ay huit milliards ci fonds politique que président assemblée nationale chaque weer day am cinquante millions ñun dañoo mës a wax que ni am na institution yoo xam ni amul njariñ ci institution yooyu dañoo mën a wax képp ku ci mën a dugg ak ku ci mën a laal wala nga dugg ci gouvernement ñun li ñu ëppal solo mooy suñu taxawaay démb mooy suñu taxawaay tey. ñàkk éducation bu baax ci wàllum ñàkk li nga xam ni mooy dund bu baax que yooyu nga xam ne ni ay institution lañu ñu jël ko def ko ci li nga xam ni moom mooy fekk soxloo askan bi. dañuy jaaxle bu ñuy wax ni plus de quatre cent et doomu Sénégal ñi ngi dee ci waax yi nga xam ni moom moo jëm Europe ci booba politiciens yi ñi ngi paccoo ci seen biir ay institutions yoo xam ni ay milliards et des milliards lay lay jël ci suñu budget moo tax FRAPP mi ngi ñaawlu taxawaayu président de la république Macky Sall nga xam ne bi nga xam ne mbas mi dafa taxaw dafa taxaw mu ni ñu l'heure est grave mais gis nañu coronavirus li mu rey bëri na naam waaye ci benn semaine lu mu ëpp ñeenti yoon li ci géej gi ful na ko fuuf te ñu dégg président de la république mu ni ci pat ci benn tiit la wax ak sénégalais yi loolu nag lu ñaaw ndaxte jàpp naa ni fu àdduna bi yépp di ko ñaaw ñun suñu président bi nga xam ne moom la ñuy nattal chaque fois suñu budget di ko jox mooy yépp tey mu jëloon suñu kérosène jël suñu avion dem fa nga xam ne mooy France ci wàllum Charlie Hebdo di leen massaw tey président boobu moom la ñu dégg mu ni pat ci ay sénégalais yi nga xam ni dañoo amootul confiance ci li nga xam ne ni mooy seen avenir ci seen dëkk ñu dégg leen ni géej gi jël na leen ñuy masawu famille yi di masawu Sénégal gépp moo tax ñun jàpp nañu ni lii nga xam ni daf ko woote ni moom moom mooy relance économie senegal ñun jàpp nañu ni moom relancé wul économie waaye moteur bi nga xam ni moom mooy buumu nootukaay bi nga xam ni depuis moo ñu jatal ci indépendance ba léegi moom lay bëgg a loolu nag ñun d'accord ci ndax jàpp nañu ni moteur boobu moo tax amuñu tey li nga xam ni mooy suñu indépendance ci wàllum pharmacie suñu indépendance ci wàllum li ñuy lekk suñu indépendance ci wàllum faju waaye suñu indépendance ci wàllum koppar bi nga xam ni franc CFA dafay continuer di ñu dugal ci buumum noot di ñu gën a dugal ci pax ci wàllum ndóol moo tax ñuy laaj te ni fi mu dafa jot nag que boobu boobu tonton national boobu nga xam ni dafa am rek benn groupe boo xam ni ay nit lañ ñu nekk ci état bi ñu koy def ñun loolu dañu bëgg président Macky Sall ak ñi mu koy defal ñu dakkal ko FRAPP mi ngi jaxle ci tamit euh, li nga xam ni moom mooy troisième mandat bi nga xam ni ñi ngi koy wax en Afrique de l'Ouest ci boobu ñu gis aussi que dañ koy jaare ci wàllum waaso di jaxase ay doomu Afrique te ñun suñu kuréel dañuy woote li nga xam ni mooy panafricanisme li Cheikh Anta doon wax ni ñun ñëpp dañoo war am fierté tey di sentir suñu bopp ni africain lañu waaye ñu waruñoo am tey di sentir ni ñun dañoo nekk ci benn waasu ndaxte ñii nga xam ne ñoom ñooy les impérialistes ci loolu la ñuy utiliser pour di ñuy gën a noot ci wàllum troisième mandat boobu moo tax ñuy wax le président de la république Macky Sall ak coalition ak ñii nga xam ne nii ñoom ñoo jiite réewum Guinée réewum Côte d'Ivoire réewum Mali wax leen ni leen lii di wàllum waaso nañ ci jub arrêté ko mu bañ a féewale doomu Sénégal waaye aussi lii di question troisième mandat ñu leen di wax ni ñun jeunesse africaine taxaw nañu te ñoom warul a nekk loo xam ne nii war nañ ko utiliser sax pour di jéem a toogaat ci pouvoir FRAPP nag mi ngi woo képp koo xam ne nii démocrate nga nga nekk ci Afrique de l'Ouest nga nekk ci àdduna ñu wax ni tey la ñu war a gën a joxante loxo waruñoo toog yaafus bés bu nekk war nañoo jug ngir taxaw àndandoo ba xeex lépp loo xam ne ni projet troisième mandat la fii ci Afrique de l'Ouest di wax nag fi ñuy daanelee mooy ci samedi bi am na marche bu mag bu ñuy woote ci place de l'Obélisque ci foofu nag ñi nga xam ni ñépp ñoom ñoo bokk ci collectif doy na te nga xam ni ñii ci wàllum liggéey bu ñu ñàkk la ñii seen li seen i kër lañu ñu toj ñii seeni tool la ñu nangu ñii seen ndox la ñu paacoo ñii dañ leen a yoral ay arriérés de salaire ñii ay étudiants lañu yoo xam ni orienté bu ñu leen ak ñeneen ak ñeneen sénégalais ñépp dinañ fa joxante rendez-vous di wax sénégalais yépp nañu ñëw dooleel leen lii nag mooy bataaxal bi nga xam ne ñu ngi ko def tey le 5 novembre 2020 déposé nañu ba pare donc bu paree ñu dem def enquête de routine joxe garantie yépp que ni ñun dinañu def li nga xam ne moom mooy suñu doxaayu ñaxtu jàpp nañu tey que ni préfet dina ko autoriser waaye même bu ko autorisé wul moom moo nekk ci illégalité ndax ñun ñoo nekk ci droit ndax constitution moo ñu cëral que ni droit marche droit la bu ñu def ci constitution donc dañuy xaar à ce moom mu inscrire à l' à l'égalité ndax tey lu ñu mën a wax muy trouble à l'ordre public bu fekkee ni day am préfet bi nga xam ne nii moom moom moo autorisé wul moom moo nanguwul loolu moom mooy def trouble à l'ordre public donc li ñuy wax rek mooy woo Sénégalais yëpp wax leen ni marche bi dina am te jàpp nañu ni préfet bu fekkee ni moom euh, li nga xam ni moom mooy droit dina joxe kaaraange gu doy joxe aussi euh, li nga xam ni moom mooy këyit gi nga xam dinañu permettre à ce que ñu exercer suñu euh, droit euh, beneen bi mooy li nga wax ni FRAPP ndax dina jot xaalisu parti politique ñun FRAPP organisation citoyenne dañu ni lëkkaloowuñu ak parti politique donc jàpp nañu ni sénégalais yi ñoom ñoo war a financer ak africains yi ñoom ñoo war a financer suñu xeex nit nag fu mu nekk mën na participer bu fekkee ni gis na xeex bi ñuy xeex boppam waaye ñun du ñu nangu kenn di ñu takk wala structure benn di nekk suñu ginnaaw di ñu financer donc ñun jàpp ñu ni mën nañoo jot ay financement ci ay parti waaye nag sénégalais fu nga nekk nit fu mu nekk. war nañu mën a tey jàpp ci xeex bi te jàpp nañu ni yow boo jugee peut-être sa 1000 francs wala sa 2000 francs dina dugg ci xeex bi ndaxte sénégal yépp tey gis nañu ni FRAPP instrument de lutte la boo xam ni dafa nekk di taxawal askan bi